comerciales. Acá tu banco, ¿eh? asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ba tey ñu ñëwaat ak yéen fii ci nga xamante ne fii mooy Kër ma Massar lu waral lool nag li ngeen xam ni moo lëmbee dëkk bi muy coronavirus moo tax tey ñu ñëwoon ci nag di xool nan la kii di doxee maanaam dégg nañu fi am nay cas communautaire nag moo tax waa Kër Massar nañ seen i bu baax a baax sax ah, ba tax na gendarme yi def nañ fi liggéey bu rafet waaw magasin yi nga xamante ne si ñoo newoon fii di di tax mbooloo bi di dajaloo ak maquette bi li nga xamante ne dana am ci station bi lu si bëri wàññeeku na tey boo gisee Kër Massar dafa changé bu baax a baax a baax fii heure yi nii daan na fees dell ak nit mais tey boo xoolee oto yi rek ngay gis dem beeg dikk rek ak nit ñi nga xam ñoo wàcc di ñibbi seen kër yi mais benn place jaayukaay amu fi. waaw ba na dañuy jàll si biir rek je fekk waxtaan ak ñi ci fekk ñu laaj leen fii ni muy demee lan la ñuy fii ak ñi nga xamante ne si moom la mairie Kër Massar bi teg fii nii léegi topp mooy ñu yem si biir sama caméraman waaw ba tax na ñoo ngi fii rek tegee daje fekk suñu benn mbokku taalibe buy jaayee nii soxna si gis nañu Kër Massar ak li ñu naan ay cas communautaire ba tax na ñu jékki-jékki ne rapport cantine yëpp léegi ngeen ko gisee ak yéen ñi nga jaay fii nii. naa leen siyaare di leen wax na leen yëf yi moom metti rek. Hmm. surtout ñun jigéen ñi hmm. ñu teg ko denc ko xaaj bi yëpp yàqu liggéeyuñu yor ay xale yu ndaw defuñu dara dañuy toog loxo kese nañu ngi ñaan nañ ñu dimbali bàyyi ñu liggéey may ñu heure heure bu ñu mayoon ñu may ñu ko bàyyi ñu liggéey bis 6 heures ñu dem ñibbi suñu kër yi ndax xëy bàyyi sa kër bàyyi fa njaboot da nga am. feebar bi dëgg la ndax kenn ku ne sa wér gu yaram kenn ku ne bëgg sa wér gu yaram waaye nag wax dëgg yàlla am lekk geeg naan ko muñ see ñàkk nañ am luñ lekk am naan wér gu yaram boo amee tu lekkoo naane bu yàggee wér dëgg day gën a yokk rek yéen daal lu ngeen bëgg ñu dimbali leen waaw comme nan comme nan ngeen bëgg ñu dimbali leen ñu bàyyi ñu ñu toog jaay bu heure bi jotee ñu wàcc dem ñibbi bu 6 jotee ñu ne ñu jot nañu dem ay jigéen lañ dañuy kontaan kese man président Macky Sall groupe bëgg Macky Sall laa bokk damaa politique ba taay Moustapha Mbengue nga xam na bu baax damaa yoroon sama di ànd ak moom di def campagne mm. nañu yërëm te yàlla tax dimbali jigéen yi jigéen ñëpp ngi toog yoratuñu dara seen banaana yàqu na seen orange yi yàqu na seen lépp yàqu na loolu baaxul dañ ko dimbali yàlla feebar bi nag yàlla na ko suñu borom jëlee si barke nag Moustapha waaw kon noonu ngeen ko déggee bàyyi leen sama waa Kër Massar bi ñi lancé nañ appel quoi ne ngeen dimbali leen ba ay jigéen lañ ko soxla nañu dimbali nañu dimbali waaw kon noonu di wàcc amuñu oto yu leen andi Kër Massar di bu ñu guddee wàcc ñu ramaas leen dañuy xëy ay Dakar am oto suñ guddee wàcc ñu ramaas leen lekkuñu naanuñu problème metti mu ngi mel weer lañu tëj nañu dimbali ñun ay néew doole ne dara ci yàlla rek tax yàlla na yàlla saafara ñëpp yàlla na ko kon déggal sa waa Kër Massar yi nga xamante ne ñoo la fal ñoom ñooy wax loolu noonu jàppale leen soxla nañ ko leen dimbali nañu jàppale ci yàlla tax dañ ko jàppale woon ànd ak moom ba keroog yàlla fal ko mhm. kon moom it nañu dimbali te yàlla tax président Macky Sall bu ko déggee nañu dimbali moom it yàlla rek tax na dimbali jigéen ñi Kër Massar ñun ay néew di doole nañ ci mhm. ah, yàlla rek tax métti mhm. na kon noonu ngeen ko gisee woon léegi demaat jàll ci keneen rek waaw ba tey ñu taxaw suñu beneen naataango boo xamante ni si fii ne ci station bi di yëngatu saa na nga yaa ngi am tawfeex bu baax. tawfeex rek waaw fii ngay liggéeyee. fii ngay jënd wala da ngay jaay. dañuy jaay quoi maa ngi place ah, di jaay ay téléphone la ñuy jaay. ah ay téléphone dañoo place. dañoo ah, loolu ngeen ko dundee moom. waaw sang na trop te xam nga amuñu hmm. lu ñu foofu lañ ko yaakaar woon sang yi toll moom li yàlla xam doy na daal dëgg la léegi ndimbal bi ñu waxoon ni gisuñu benn ndimbal instant yi toll nii moom ci dund yaakaar rek yaakaar lañu ah yéen dañ leen waxoon ay ndimbal quoi yi fekk ak yéen waaw ndimbal la gars yi waxoon te gisuñu ndimbal gisuñu dara comme yan genre ndimbal ah. ba léegi waxuñu ndimbal bi ni mu fay demee ba léegi gars yi waxuñu ah mais ñoom avant ñoo tëj waxoon nañ leen dañ leen dimbali waaw waxoon nañ daal après bu ñu tëjoon ne na am lu ñu jox mais gisuñu dara ñii nag ah peut-être xam naa daa jàppandikoogul rek mais yéen a ngi am yaakaar ba léegi dañoo jëloon seen numéro wala non jëluñ numéro jëluñ woon dara yéen bu ngeen xëyee da ngeen ñëw di xool di dem ñëw xool ak dem te xool dem ku ma kër te yow njaboot léegi lan ngay waa mairie bi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk fii mairie bi ko instant ñoo def suñu ñoom ñoo def instant yi toll wax ñu may leen comme ngeen commencé huit heures si suba ngeen arrêté si ngoon ngeen arrêté mais bu ñu ko mën a may si waa Salam mais sans yu toll nii moom métti na suñu kanam ñun ñëpp métti na ndax trop xaw ma nag nu mun def moom nañu may rek mais bu dee koccaatu tuuti ñu am lu ñu def oto delluwaat kër am na solo am na solo macha allah sa message dina jàll kon ni ngeen ko gisee suñu beneen naataango fii station yi day jaay téléphone moom li ñëpp wax métti na trop kon métti dañuy jàllaat si biir xool ñeneen naa ko génne suñu naa rek nga xam man maa ngi raxas. ñoo ngi nii ak suñu benn moom fii lay jaayee écouteur fii nga xamante ni mooy station Kër Masar na nga def. sant yàlla waaw daa ngi am waa sant waaw gis nañu Kër Masar fii dañuy dégg ay cas communautaire ci coronavirus ba tax na gars yi dañoo tëj magasin yi tere nit ñi jaay nu ngeen dundee loolu noonu. métti. Hmm. ko nii ñoo ko gisandoo. waaw da ngay xëy ba koy jaay gars yi mayuñu la fenn foo jaay. te ku ci nekk fii nii ñu si bari dañoo yor ay njaboot. dëgg la yor ay soxna si ku mel ne man mii dama yor soxna yaa ngi dégg sama yaay ñëpp ci man lañ baax mais nooy def. chaque jour gis nga léegi nii lañ bàggante nii ñëw dañu nangu sa bagage ci noo xam si ni mooy loolu lii nag bu mag doxul waaw indiwul solution quoi li naan saafara bu jur jàngoro lan nga gis yow léegi ñu defaral leen ko loo xamante ni dina leen arrangé non man li ma gis comme ni ñu njëkkoon def baax na comme ñu ne ko ñu xër heure tel wàcc heure tel loolu c'est yaa ngi dégg mais ñu ne toute la journée amul liggéey amul dara man loolu di solution man li ma gis daal à part set gi. di sol yi gaaw di takk comme affaire yi et ni ko médecins yi waxee. c'est bon yaa ngi dégg leneen li si des nag. comme solution bu njëkkoon baax na mais bii moom man ànduma ci parce que lii di solution. daan métti sans que dafa métti de trop. gis nga gars yi ñu ne dañuy baagante daw ak a dikk. xam loolu doxul. waaw ah, loolu daal métti kay. doxul te des fois dañuy jël sa bagage dem sànni moom pour jël ko xool da ngay fay par du la jox sa bagage li gën a méttee ngoog. man mii dal na ma xam nga. ak yeneen ak yeneen yoo xam lan ngeen lan ngeen ñaan yéen bañ bañ leen wax loolu dañ leen a joxoon ay matuwaay wala dañ leen ne woon dinañ tëj wala waxuñu leen woon dara. non yaakaar naa je pense que mardi passé la. waaw ah. te avant ba ca dimanche ba xuma samedi ba dañ fi ñëwoon waa mairie bi ñu fi ne xaw ma leen mardi dañuy nga xam ne kenn di joob dañuy tëj marché bi affaire yooyu waaw loolu rek la ñuy wax léegi ñu xëy xëy gendarmerie ñu wàcc seen liggéeyam noonu daal joxuñ amul benn solution boo xam te ne dama yaakaar nit ki nit ki soo ko bul def lii da nga koy jox lii bu a toog mm. mais koo xam si yoroo ko joxoo ko dara dimbalawoo ko dara kooku boo ko bëggee tooloo day métti du mën a métti lan ngeen bëgg yéen ñu jox leen heure bi ngeen xamante ne si moom ngeen xëy ak heure wàcc six heures du matin bi ñu waxoon mm. jusqu'à vingt heures c'est bon sax dix-neuf heures dix sax baax na c'est bon loolu daal bu ñu ko mënee am moo ñu gënal mais xëy tëdd moom pour la man mi gis nga mardi mercredi jeudi dama tëdd lépp yaa ngi génnee di envoyé sa soxna yaa ngi comprendre di envoyé sa soxna sowal dépasse añ reer ndéeg nga di ko lu jënd yaa ngi comprendre ak loo xam si sa soxna la jëm sa bokkul comprendre léegi nag loolu boo ko bëggee def muy génn ca dara dugg day metti qu'est-ce qu'on va faire day metti yaa yaa noonu la ko ñu ñu gisee nee naa ni waa Kër Massar ngeen soxla ndimbal maanaam ngeen jox leen heure ngeen xamante ne fii moom la ñu fay heure wàcc mais ñu toog nii kese defuñu dara arrêté seen liggéey te joxoo leen dara day metti si ñoom kon léegi dañuy xuusaat uh, ah, pinanong karang waaw ba tey ñu ngi fii ci Kër Massar bi léegi ñu dajeeg suñu benn naataango bi nga xamante ne si moom calendrier da fii ci garage bi yi na ngeen def. waaw ça ñu ngi sant bu baax a baax. yaa ngi am taw kër. waaw ñu nga feebar bi fi mu yóbbu ba tax na yéen leen a proposé ay clients yi nga xamante ne si moom ngeen war a yeb. waaw loolu dëgg la feebar bi malgré que métti na fépp. Hmm. parce que déjà indi na crise mondiale crise économique ci àdduna bi yàlla métti na mais ñun respecté nañ loi yi déjà que depuis premier jour wax ni ko. ni oto yi deux personnes ñu war a yeb à compte du muy trois ñu koy doxal mais dafa metti metti na lool lool lool. mais lu ngeen koy dundee yéen. waaw ñu koy dund comme ni ñu ko waxee rek ñu koy dund comme ni ñu ko waxee parce que mënuñu si lenn amuñu amuñu choix bi. Mm-hmm. parce que ñun ñu personnes mooy suñu intérêt. Mm-hmm. mais deux personnes nga yeb nekk borom kër war a yóbbu yóbbu njaboot gi wala yóbbu versement mm-hmm. day metti waaw parce que cent francs cent francs wala ñaari nekk ku nekk fay la. waaw te mënoo ci lenn mënoo ci lenn. boo ko tegee mais gasoil bi wàññeeku na wala wàññeekuwul. non gasoil moom wàññeekoo vraiment ñu war fi ñu nekkoon ba léegi dugg ko. kon métti na métti na métti na lool lool lool ay borom kër fi ne di daw ngir seen jaboot di taw ngir seen yi waa kër di taw ngir seen yaay. kon tey jii nii lépp lu ñu mën a dimbalee rek ñun ñuy ñaan état bi mu dimbali ñu ci. kon yow en tant que chauffeur nan nga bëggoon ñu dimbalee leen. man man respecté nañ normes yi. Mm-hmm. nañ normes yi li ñu wax ñu ngi koy jëf balaa ñoo dawal ñuy takk max ñu ngi sol gant am nañ ay sel euh, hydroalcoolique ci sunu oto yi mm. yaa ngi dégg di ko gérer naas wax dëgg fi yàlla mais li ñu mën a dimbalee mooy ñu wàññi gasoil bi benn ñaar clients yi tam nañu jéem a comprendre ne ñun bëgg nañ leen di leen yóbbu comme niñ ko bëggee mais tey jii suñu liggéey mënatuñu may loolu ndax nguur li mu wax ci loolu la ñu mën a sukkandiku ñu dimbaluñu may ñu fii ay gel dimbaluñu ci ndox xoolal bidon bële dañ ko fa teg pour gars yi di ku ñëw raxasu mm. kon tey jii nii ñu ngi jéem ci li nga xam ne moom la ñuy sukkandiku pour protéger suñu hygiène pour protéger suñu santé parce que ku nekk gis na feebar bi mu ravagé dans le monde entier kon tey jii bu duggee suñu réew tiitaange dañuy digal fitna dañuy digal mais li nga xam ne moom la ñu digal pour ñu def ko ci loolu la ñuy dox wax dëgg fa yàlla lu ñu mën a waay waaye mën a jàppale xeebuñu lenn saabu bu jox sax ñu téye ko fi nit ñi di ci raxasu waaw ngeen nu mu demee fii ci xamante ne mooy garage Derrière bi ñoom ndimbal lañ soxla te ndimbal mooy bi en plus tamit ku am gel wala saabu ngeen dimbale leen ko comme ni ko ñëpp waxee dimbal waa Kër Massar soxla nañ ko dañuy dem ci biir jàllaat pour xool suñu beneen naataango